Fata, Fata sera avec Ouda Brens, Baha Ojibi, euh, King Degeti. Donc on amène toute vraiment l'armada. Pape Sidi devait être là, mais il fait une émission euh, vendredi matin, donc Mounoul Donc euh, <laughs> on amène toute l'armada à Saint-Louis. pour que marquer le coup. Viviane aussi nous a donné son, son, son aval, elle sera là. Adia de la série Adia, elle sera là. Donc euh, pour vraiment lancer cette campagne-là et dire aux Sénégalais, nañu fexe ba xaalis bi di des fii nañu bàyyi égoïsme bi nañu bàyyi di jéegaane waaw nañuy fexe ba jënd ci suñuy artisan comme ça xaalis bi fii lay toog. voilà maintenant on va marquer une pause parce qu'on est dans Arru aussi nous on a connu un Simon très très hip hop Simon est-ce que bàyyi woo tous tasar bi est ce que jàpp la nga nekk président bi. kay <laughs> eh, Simon tàng de bu tàngee ay ay ay bagage lay def de waxul benn booy bàyyi naa la ak yàlla de mënoon na rab nag xaw ma léegi ndax bàyyi na wala bàyyi ko. yëpp laay ñëw <laughs> am am am <laughs> Simon for na këriñ nga ok ñu dem ah, nga pare original gaynde bokkuma ñi demoon bata original gaynde bokkuma ñi demoon bata fit bi fu mu ko abbee du saaga day kataa xamul njaax songo ko seet dalay tabaa see maa la gën a dee boo ko weddee jëmb agaase booy ut ku dëggu teeral nga fii la du f maanaam du fee du f du nef ma bamtuwaat ko if la yàgg yëngal grève dirigé ay AG tey HH bi këf ñu kon yoon la beach ñu engagé streetwear yi di daxee ñu jël soppi trait yi ñoo magie life boy magie life boy ak loo dul gis ci téere yi boo dee politicien yoon la ñu def la ka dëkk ci L askan wi ñu soppi maay ki tàpparka L de pigeon ah. dëkk ci L askan wi ñu soppi maay ki tàpparka émotion émotion bi ne si lyrics yi dund la bul ñu en bul ñu en tund wund la booy oote xaret daa war a fekk nga op rationnel teg ci c'est Q rite bi fëla ep ale us jóge fi ni siiñu Nike air bul es liggéey bi fay day sax ba ci air yi concept yu big yi ñoo ko fi oote coach ko ni met su gis gisuma défense bi ñuy stoppé sauver hip hop bi sauver ak vision wu vainqueur concept W saxal ko si lu ëpp vainqueur du jaarul du DMX rapi Simon la ñuy exporté ba pays grec nu ñu neex doon ci hip hop bi Super Hornet Star wala underground ni mamen o bi di scratch est-ce que dégg nga oui eh, eh. yeah changer tour ñu ñuy oowee DJ Z2 eh DJ Z léegi ñun ñooy DJ z de xamu leen dara dem leen jàngi rap xam-xam la you know what time it Il toujours, a toujours la niaque de ce qu'on connaissait de Simon. Il a commencé à rapper de A B C D. Bon, noonu la ñuy jàngale gars yi jàng yi fu ñu A B I don't know loolu ban <laughs> ban figure de style la mais <laughs> wax naa <laughs> en tout cas il est resté le même le Simon qu'on a connu même quand il est s'occupe de l'actualité par rapport à la politique ou euh, la consommation locale Simon reste le Simon qu'on a toujours connu stoïque et jàmbaar respect pour tout ja waay maa ngi lay gërëm di la sant on se donne rendez-vous très bientôt très bientôt donne rendez-vous à tout le monde demain vendredi à l'ISM de Saint-Louis à partir de 15 heures on lance le projet savoir-faire local solo fii dallu fii lay sol qui est la première phase à Saint-Louis avec les artisans de Ngaye les artisans du village artisanal avec euh, Doudou fait des vidéos Samb Peuzzi Viviane Ndour Adja de la série Adja avec Fata El Presidente euh, qui d'autre encore euh, Yacine Diop basketteuse elle sera avec nous Dabrens Bakhaw Djibi voilà on sera avec pas mal de gens euh, Saint-Louis ñoo ngi ñëw Pape Sidi One love. Hey, on va voir nos amis de Mythic. Let's do it.